màggaluñu keneen ku dul moom suñu borom ndax wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un kon li tax ñu ñëw fii mooy tudd rek kon moo tax ñu taxaw ak sëñ njaay Ndiaye vingt 28 di taalibu sëñ Fallou suñu wonante nga xam ni kenn la ci murid yi nga xam ni moom na noo leeral lu bari ci bis bi leeral ñu lu bari ci lu zikrullah sëñ Fallou ñu ngi lay siyaar ahasbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min asabina limin tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum tahlamun eh, ñi ngi nuyu mbokki murid yi bu baax di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké sunu borom dolli ak dundam bu baax te yàggal ko fi bu baax waaye di ñaanal bu baax sëñ Amdi Fall Modou Mbenda sunu borom dolli ak dundam te yàggal ko fi bu baax a baax di ñaanal Cheikh Fadilou Fall ak Cheikh Moustapha Fall suñu borom dolli seen dund te yàggal leen fi bu baax a baax waaye di ñaanal mbokki murit yëpp bàyyi woon kenn di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ Fallou sant nañ bu baax a baax ci nuyoo bi sëñ Fallou naka ngeen gisee bis bi ak naka ngeen ko waajale keroog baa xam ni Cheikh Mamadou Mountakha jox na ndigal Cheikh Cheikh Amady Fall moom suñu mën ngir mu taxawal bis bi ci ñaareelu yoon amoon na te 22 décembre 2020 2021. mu amaat tey naka la ko murid yi dunde naka mu naka mu yi waajee ak mbégte mi nga xam ne murid yi jot nañ ko biñ jotee ndigal ndax ku ne xam na ni képp koo xam ni Cheikh Rafal nga yaakaar sa yaakaar ayu Cheikh Rafal amul leneen lu la mën a dundal lu am ndigal murid bu jotee ndigal dana sant naka ngeen ko yëgee naka ngeen dundee mbégte moom ndigal mi nga xam ne ndigal la woo xam ne daa ràññeeku ci biir ndigal yi ndax Baye Fall kat amul lu dul tur yàlla Cheikh jox ñu ndigalul tur yàlla naka ngeen naka ngeen ko waajale ndax dir bi gàtt na waaye gis nañ ni dayo bi faw naka la ko murid yi waajale ba bis bu mën a doy doy na waa jërëjëf xam nga dañuy wax ne Baye Fall day jekk saa nga xam ne bu ndigal ñëwee du ko bett noonu la Cheikh Ibra doon doxee waaye sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké dafa dekkilaat cosaanu yoonu murid yëpp la dekkilaat maanaam mboolem cosaan yëpp dekkilaat na ko tur yàlla wi ba mu ko njëkkee woote dafa wax ne tudd yàlla ñëpp ko man waaye defin gii kat ñii ñoo ko man daan ne man ko mën a xalaat laa waaye saa yu ma xalaatee sëñ bi gàttandu ma kon dana xalaat waaye du dogal am na koy dogal waaye mu ne saa yu ma xalaatee sëñ bi gàttandu ma moo tax ma ne nañ sant yàlla ab diir daan ne woote naa bisu alxuraan woote naa bisu xasida waaye ba tey yëf yi dana degg moo tax mu woote tur yàlla ba mu woote tur yàlla kenn déggatul coowul dara kon moom mooy mbégteem jaam ñi moom mooy ki nga xam ne moo téye njariñal jaam ñi Baay Faal yi nag boo déggee ñu ne turu yàlla dañ koo jagleel Seex Ibra Seex Ibra nag ci sëñ Tuubaa la déggee tur yàlla sëñ Tuubaa Baay Njaga nee na sëñ Modou Mamoun Ñang nee na sëñ Tuubaa moo daan yëkkati tur yàlla wi bari na ci njaboot sëñ Tuubaa gi turu yàlla wi dañ ko doon jàngal seen njaboot benn mën naa ci tudd sëñ Soy bu mbakke ci nettali sëñ Njaga Jóob Baay Faal kon loolu doon lu mat a bàyyi xel turu yàlla nag dañuy wax ne baat bi dëgg-dëgg baat bi maanaam ni yàlla tudd dëgg-dëgg laa ilaha illallah ba arab amagul amul woon neneen la tuddoon amoon na tur amoon na nu mu tuddoon noonu mu tuddoon nag ñaari baat la yoo xam ne dañ koo ilham Baay Faal ci biir sikar si maanaam ci biir awu bi baat boobu mu tuddoon malayka yi boobu lañ xam baat boobu liir bu juddoo moom lay jooyee bu ko jooywul dañ naan faatu jullit bu feebaree moom lay onko jullit buy tukki Baye Ndiaga ne moom lañu lay booleel baat boobu mooy dox di dox di dox di dox ba si ci alléluia bi chrétien yi di wax di dox di dox di dox ba arab am mu tudd laa ilaha illallah Baye Fall nag dañ leen koo ilham ñaari baat la ci biir aw bi kon loolu jagleelu Cheikh Ibra la Cheikh Ibra it tur yàlla wi ci sëñ bi la ko déggee di ko defal sëriñ bi maanaam di jege sëriñ bi li sëñ mu Ka di wax ne moo fa saxal saqal kawar moo fa saxal soli soli sagar moo fa saxal saxoo sikar daaw fa bay di rox roxi kon loolu bu ñu delluwaatee ci taari sax ci net li sëñ Moussa loolu day li nga xam ne kon nii ñu koy defee du defuk caaxaan pour yàlla day ubbi bopp te it yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waskurullah hatta yaqulul munafiqun annakum muraun de leen tudd yàlla ba naa feq yëpp na da ngeen a ngistal nee na ngistal moom tur yàlla rek ko jar daal wax ne maag yonent yi njëkk yi li gën ci lu ñuy wax ci làmmiñ mooy laa ilaha illa laa laaj nañ ko ne ko li gën ci lu ñuy tudd ci làmmiñ lan la alayhi salaatu wasalaam daal di wax ne afdalu ma qultu ana wa nabiuna min qablu laa ilaha illa laa kon tur yàlla wi nga xam ne moom la Baay di def te tur yàlla ku ko wax di nga wax Baay Jibi ku ko wax di nga wax Baay Jibi di nga wax mag ñi àndoon ak sëñ Cheikh Fall Baay Góor waaye di wax sëñ Cheikh Fall Baay kon loolu dafa doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la sëñ Cheikh Fall ba ci turu yàlla yi nga xam ne rek nit ñi dañ koy wute dara turu yàlla baa njëga nee na ma dafa am bis ma toog ci kanamu sëñ Cheikh Fall bàyyi góor mu ne ma njaga ma ne ko Fall mu ne ma seen nga kële toog am kum joxoñ genn kilifa mu ne ko seen naa ko kay mu ne ko du murit dafa am turu yàlla bu doon wér di ñu feeñal ko ne ko rawaan bi moo ko feeñu ne kon turu yàlla buñ koy wax Cheikh Cheikh Ibra moom la ko suñ borom jagleel mu tasaaroo ci njabootam gi sëñ Modou Moustapha Fall taxaw ci taxawaay bu am solo am na bis boo xam ne fii la ñuy tuddee yàlla laytu xadri daaw daawaati jéeg fii la ñuy tuddee yàlla biñ tuddee yàlla ba sonn sëñ Moussa Nawel daal di génnaat daan ne sëñ bi nee na ngeen tuddaat yàlla ba noppi daan ne nee ngeen wër wër bi wër bi da koo neex wër bi nii nga xam ne yooyu. lu ama am solo la loo xam ne cosaan la mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la kon li sëñ Tuubaa di wax ne am ma dawaamu sikri fa huwa akbaru min kulli maa kaanal muridu yuksaru am murid lépp lu muy def baril tudd yàlla moo gën ci moom kon tur yàlla ak baay Fall ñoo ànd Baye Fall li nga xam ne mooy ma ak tudd yàlla kon sëriñ bi bu dekkilaatee cosaanu yoonu murid dekkilaat lépp saa su ne mu woo Baye Fall di tudd yàlla toog seen kanam def na la sëñ Abdoulaye Mbacke daan def dégg naa ci sëñ Njaga Baye Njaga Diop Baye Fall mu ne ngan gi sëñ Blaat doon defal Jili Mbay keroog bañ fa demee sëñ Cheikh Fall Baye góor ñëwul sëñ xalifa la yabal ndax rakk ma tawatoon bi mu ñëwee murid di tàmbalee tudd yàlla sëñ Khalifa ñëw ne Jili Mbay sëñ bi de bëggoon naa ñëw waaye rakk ma tawat moo tax Jili Mbay ne ko xam nga lan la man naa dégg tur yàlla wi rek man naa dégg tur yàlla wi rek nga xam ne kon tur yàlla leneen la sëñ Blaat bi mu déggee tur yàlla wi dafa woote daane wol leen ma Baye Fall yi ñu woo ko mu ne taxaw leen nii ñu taxaw mu dendeek volontaire am nga xam ne bu defee nii day jàkkaarloo ñoom daan ne tudd leen yàlla ma di ko dégg ba fajar kon sëñ Mountakha lii mu def nii dafa dekkilaat loole loolee kon sëñ Mountakha li ñu def mooy ñaanal ko mu yàgg fi tawér ndax dafay war a yàgg de dafay war a yàgg bu baax a baax a baax a baax maanaam karaam ak dund la war a am ndax mësuñoo gis ku mel ni moom lii mu indi nii ku mel ni moom te xoola jamono ji mu tombeel moom sëñ Mountakha